أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ànd ak yéen seen yóbbalu suba ku ne xam na ni tey jii mooy ñaareelu kumte ci weeru koor gi waaye comme ni nga ko baaxoo defee mooy baat bu ama am solo baat bu oyof toll ci làmmiñu doomu aadama waaye dis gan fa sama borom subhaanahu wa taala muy istixfaar li mu tey bi nekkoon li mu sansis te mooy allahu waaye bokk na njariñu istighfar képp koo xamante ni sax ka ji sun borom dina la may ay xéewal ndax dafa amoon ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat man bay képp laa yaakaar am naa amna am naa tool ba def lépp waaye ndox mu taw mun am ba tool yi amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko demal sax ci istighfar mu dem sax ci istighfar ñu teg te ay fan yu néew sun boroom taw taw mu bari toolam ba daal di naat lam jiwoon daal di sax mën koo jaay ba mën koo jëfandikoo kon yéen samay mbokk istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursil samaa aleykum midraara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu